programme GAD ñi ngi koy wéyal nekk programme bu am solo boo xam ne ñi ngi ko taxawal rawatina nag ñi nga xam ne ñoo fekk baax ci dëkk bi la di GAD digganteem ak dëkk bu sell bi di Touba ay kilomètres yu ndaw dox ci gannaaw ba ñu ko tàmbalee nag mu jur lu bari mu ñi nga xam ne fii ci dëkk bi la fii la ñu fekk baax liggéey gu am solo gi nga xam ne amal nañ ko tey jii ñu nekk ci dëkk bi di GAD bés bi la nag ñu daal di koy jagle lu jëm ci jëmbat ay garab Mabouba Diagne di vice président la banque de la CEDEAO pour l'investissement nekk ci ginnaaw projet bi la ngir suqali bi nga xam ne fi la fekk baax muy GAD Diagne loo ëpp ñetti téeméeri garab yu nga xam ne jëmbat nañ ko file Etienne Faye technicien agricole fournisseur de plante di kat ci jëf ju am solo ji nga xam ne amal nañ ko file ci gàdd ak njëriñ gi nga xam ne mën na ko fournisseur de plante depuis daaw bon ñëw naa fi di liggéey waa Etienne Faye maa di liggéey waa village gàdd bi bon def nañ fi daaw benn opération bon ren ñu def deuxième opération pour cette année si indi nañ fi trois cents sujets bon de plants euh, am na goyab am na karosoli am na mango ak citron bon après am na aussi garab pour ombrage bon y a mantalis des mélina ak sablier moom la ñu bëgg def au niveau du village bon ci biir quartier yi bon y a six quartiers ci y a six ci la ñuy def euh, garab yoo xam ne yi c'est pour la production des plan comme ça ñu mën cee lekk. Mabou Diagne liggéey gu am solo gi nga xam ne mi ngi koy amal ci dëkk bi lee di gàdd nga xam ne fi la fekk baax gannaaw kër sëñ Touba gi nga xam ne tabax nañu ko file ñi woon ci ndaje mi lee rafetlu liggéey bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy def ci dëkk bi le lii su amee ci initiative euh, monsieur docteur Diagne la ma Mabouba Diagne euh, actuel vice-président de la banque de la CEDEAO pour l'investissement ak tant d'autres projets yoo xam ne si pertinent et Euh, loolu moom euh, initiation bi la. Euh, li ma nga xam ne nag ass mi ma koy def loo loolu man maa opté pour di ko def ndax ginnaaw gone laa te yàlla dogal na maa ngi Touba jot gi xaw naa kaa am ngir rek ñi nga xamante ni nekkuñ ñekk nekk bitim réew. kon lépp loo xam ne ñu ngi koy def man ma teewal leen dina ko defal loolu rek man mooy sama sama sama sama sama sama si mbir grand mosquée grand mosquée bii nii maison communautaire financé à une hauteur de cinquante millions Ah, gis nañ fi aussi GIE. dénk ma loolu ndax loolu wax dëgg yàlla. maanaam ci dafa yëngu ci ay développement demel ni que maanaam ay nag dañ ko ci bëgg a defar ak ay ginaar ah, ak lépp loo xamante ne day jëmale gàdd kanam. non as moom euh, comme ni ko rek nan ko ñaanal suñu borom guddal aw fanam te musal ko si cat. waaye liggéey la boo xam ne liggéey bu am solo la te tamit nag leçon la boo xam ne képp koo xam ne suñu borom may na la dara rek war ngaa jàng si loolu di dimbale sa fami ndax nit ki mun a mënut a ama ama am wala mënut a rëy rëy ba gën a famille kon sa fay moom chaque jour ak yéene tolloo waaye nag fekk yaa ngi jël sa alal di di ko financé ñoom di la ko defar defar rek kooku yow jëru sax kenn di la ñaanal waaye suñu borom moom moo lay fay ndax suñu borom kenn du ko liggéeyal dara ba pare lu bu baax mu lay fay sa safaan ba kon liggéey boo xam ne bu am solo la moo xam euh, premier objectif yi dafay xam ne ba jàll mooy kër suñ Touba gi ak jumaa ji ñaareel bi mooy usine ba sa tubaa tàmbali na dox na euh, suñ Mamour Niang mii moom mooy président bi euh, naka noonu tamit procès yi nekk jandeer suñ jiri Niang mi moo ko jiite naka noonu tamit njàng mi nga ak ak njàngum jigéen ñi mi ngi doon dox Touba sama turando Baye Mor moo ko moo ko jiite man nag ma may coordinateur lépp lépp loo xam ne ñu ngi koy def muy liggéey la danañ ma yebal dinaa fa dinaa dinaa fa dem dinaa xool lan fa war a liggéey ma def ko présenté fa ñëpp ay yeneen projet yoo xam ne itam fas yéene nañu ko wëyal ca jandeer di projet bu mag boo xam ne ñu bëri dinañ ci am xëy yàlla gën koo jàppale. di ñaan aussi euh, gouvernement bi ci boppam man même le président de la république maanaam ndax ku mel ni Aziane ko jar a jàppale la. ko jar a jàppale ko amal njëriñ ri àddina bi la ku amal njëriñ Sénégal la kon moo xamante moom jàppale ko wax dëgg yàlla wàññiwul dara dana amal njariñ askan wi dana amal njëriñ réew mi. jàpp naan dem ba jiite àddina bépp ma ngi si kanamam ndax euh, euh, am na ñaari waajur te Olof Ndiaye wax na liggéeyu ndey añub doom am njàngam bi muy jàng fonkoon na ko lool bëggoon na ko lool kon moo tax mu àgg fii kon lii nga xam ne amagul na ko loolu lu ndaw la rek waaye li muy amaat moom mooy gën ndax lépp lu mu am rek bokk na koo xam ne dëkk nga gàdd wala sosaano gàdd mën a yëkkat sa loxo ne Ass Diagne mosuma gën kaa yokku gën kaa dëgëral gën a wéral cëram ba lépp lu mu naalaat rek suñu borom defal ko loolu mu at mu attandir barke Sëriñ Tuubaa